billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp seen toog seen sant di ziare borom kër gi di Serigne Fallou Galass Sylla di bu baax sëñ Fallou si la di ziara bi sëñ Abibu suñu technicien bi macha allah di ziara suñu mbokk yi transport yëpp rawatina suñu njiiti transport yi di si jiital président Idika mi nga xam ne moo jiite regroupement gaaru ceeb bu Touba Idiport di ko ziara bu baax di ko ñaanal gudd fan ko ànd ak wér di ziara bu baax sunu président président Pape di ko ñaanal bu baax moom it gudd fan ko ànd ak wér muy président fédération taxi Touba. di ziare ñëpp bàyyiwuñ kenn di ziare bu baax a baax sunu waa garage waa arrondissement Ndam ci njiital Baye Bassirou Diaw ñu ngi koy ziare bu baax ak Baye Mourou Ndiaye ak euh, membre ya fa nekk yëpp di ziare bu baax a baax it euh, Serigne Ali ah, di sunu doomu ndey ñu euh, war a feggoog moom fii ci émission asa fii ci émission bi ci Assalaamy FM ak Assalaamy TV di ziare ñëpp bàyyiwuñ kenn di leen ñaanal gudd fan ko ànd ak wér. di jaara bu baax sunuy waajur sëriñ Basiru Lo xalifa sëriñ Modou Fallo di ko ñaanal gudd fan ko ànd ak wér fii ci Touba Darou Minam ak sunu waajur wu jën soxna Sukay Mbay ak soxna yaa ñëpp soxna maam Xade ak euh, soxna Njaay ñu ngi leen siyaaru ñoom ñëpp seen toog seen di am contentement bu baax tey jii ci ñu war a euh, dundalaat émission bi incha allahu rabbi fii ci Assalaamy FM ak Assalaamy TV ah, ci 99 point 0 Euh, doon xaarandiku sama doomu ndey Serigne Allé waaye daa mel na agsi na tey jii nag thème bi ñu fas yéene ko jëmee ci transport comme ni nga xam ne émission bi mu tudd di jotaayu transport ak transport ak politique ak transport ak transport lan la ko état defal ak lan mooy xamante ne li nga xamante ni euh, transport war na ko état war na ko defal transport te nga xamee ne des desandi na dafa mel ne loolu moom xam naa ne liñ ci war a mën a yaatal bari na lool. ñu ngi ziar bu baax président Pape Seck sunu président fédération di jàmbaar lool ci liggéey bi macha allah kon sëriñ Alla ñu ngi lay ziar bu baax di la balu àq ah, di la ñaan nga dal ak jàmm it daa mel na xaw ngaa tardé tuuti na sëñ Alla. xaw naa tardé ñu lay ziar bu baax di sant yàlla bu baax di mm-hmm. tal ak fekkee. Mm-hmm. ba fekk sa waat émission bi. Mm-hmm. di ko waxee rek. xalifa général des mourides mbooleem yu nekk ci ci dëkk bi rek mhm. ak mbooleem ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci transport mhm. bu ñu commencé leen commencé président Idika mhm. sa ak président Pape Seck président Pape Pape euh, Pam Ndong Matar ak mboolem ñoo xam ne kilifa yoo xam ne ñu ngi yëngu si wàllu transport rek ñu ngi leen ñu nuyu bu baax te di leen gërëm di wax na tey am na thème bu am solo muy diggante politique ak transport waaw ci ci département de wala ci. ci ci lépp rek. Hmm. Sénégal gépp hmm. lan la lan la boobaak léegi lan la euh, politique jural transport. bon xam naa sëñ daam. Hmm. ci point boobu lañuy taxaw rek. ñu waxtaanee ko. ba pare ñu ñu continuer. incha allah. jërëjëf sëñ Aliou ñu ngi lay ziar bu baax di la baalu àq. Euh, wax dëgg yàlla di rafetlu sa teewaay fii ci émission bi thème bi comme noonu ma la ko waxee foofu lañ ko fas yéene ubbee tey. parce que dañoo nekk ci ay élection surtout fii ci département de Mbacké commune Touba ñu nekk ci ñaari élection benn élection bi di élection gaaru cee bu Touba héliport nga xam dañoo toll ci war a dem élection pour xool ndax président tutelle bi fi nekk mooy continuer wala da ngeen di changer seen beneen président kon loolu élection la te fédération taxi Touba bi nga xam ne ci ci ngeen bokk war cee jouer rôle bu rëy ndax transport moom booy wax neeñ premier transport sax la am na ñoo xam ne borom xam-xam yi nga xam ne ñuy yëngu ci wàllu transport am na ñu wax loolu ñu jëblu ci ay législative mu ay wate député te député yi euh, dafa mel damaa dégg ne sëfoo si di wax naan dañoo bëgg ku leen toogal ensemble loolu it dafa mel ne ah sama yaakaar yaakaar naa euh, li lu jaadu la parce que dégg naa ñuy ñaxtu te man sëñ aale aussi bokk na ci li nga xamante ne xaw na maa jaaxal mooy toujours euh, sëfoo si dañuy jàmbat bu baax a baax a baax naan seen diggante ak transport seen diggante ak état bi li leen état war a defal dafa des toujours chauffeur si dañ koy jàmbat te état it moom it mi ngi jàmbat euh, indiscipline bi chauffeur si ak nekk ci gaaru ci ak demel nga xam ne fi nii nga xam ne diggante état bi ak transport bi dañoo toggoo jiit loolu aussi mu doon loo xamante ni lu jar a waxtaane la yu da lu jar a lijjanti la léegi nag dafa mel ne nag échange euh, bi nii ñu nga xam ne nekk nañ ci ay législatif mm-hmm. occasion la pour chauffeur seen regroupement ak président garage ak yenn ci transporteurs yi hmm. xam ne ay chauffeur transporteur lañ hmm. ah ñu waxante ak état aussi présenté seen bëgg-bëgg ndax état mën nañ ci dara wala déet hmm. parce que wax dëgg yàlla euh, transport pëcc xoo gi yaatu na lool lool lool lool lool lañ fa war a lijjanti daal bari na lool man àll euh, loolu mu doon loo xamante ni daal lu jar waxtaan waxtaanee la lii moom daanaka mën naa ne jaamu yàlla la sax. Mm. parce que bu ma génnee fii temps en temps génn sax da ngay dem ba nga am instant boo xam da ngay gis loo xamante ni. da ngay léeg ngir chauffeur def loo da ngay rus a nekk sax chauffeur. mais wax dëgg yàlla chauffeur si dañuy daj ci kaw télé bi moom ah am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla sonn nañ trop. waaw comme comme sëñ Dame ni nga ko waxee noonu. dañoo jublu si ñaari ñaari élection mm-hmm. président garage su Touba Héliport. Hmm. muy garage su mag bi. Hmm. bi ci des mooy législatif yi. Hmm. ñu jàpp ne ñun sëfoor est-ce que dañoo war a toog rek. wala comme transport. nit ki jóge si àll ba ñëw. jël sunuy kàddu dem yóbbu ñu ensemble national. ma jàpp ne ñoom eh, keneen li mu ko mënee. am na ñoo xam ne ñu bokk si ñoo xam ne mën nañ ko. ñu ñu muy muy seetlu ñaar. ci li ma li ma njëkk jàngat ci ci élection yu kii tubaa héliport yi. waaw te dama cee dégg ñaari version. Mhm. yoo xam ne ba léegi. Mhm. tey rek am na ñu ma waxtaan nag mhm. mu ñii ne carte la ñuy watee. ñii ne regroupement la ñuy watee. per bi per bi la ñuy watee. muy ñaari version yoo xam ne. xañ naa ne ba léegi ak déggoo amu ci. loolu lépp jar jar na ñu maanaam ñu woo ñi ko séq. ñu toog waxtaan ndax ñàkk waxtaan am na. waaw waaw. ndax boo boo déggee kii bi dafa mel ne ñàkk waxtaan des na. Hmm. xëy xëy na moom jar nañu dajawaale toog leen waxtaan xamal leen si élection ci nii lay demee. Hmm. te li man li ma jàpp ci élection mooy. Hmm. carte membre moo moo moo moo ci ñi ñee ba ma leen déglu dañ ne. depuis deux mille dix neuf fi ay ay ay carte nag fi kenn nangu ko dagg. am ñu ne carte yi ba léegi am na kañ jën ñoo xam ne amul amul signature. muy nekk ñaari version yoo xam ne. xañ naa suñ koo bàyyee ba élection yi jot. kii hmm. mandaam jeex ñu war a te lijjanti woon ko dana dana dana indi ay lëj-lëj. Hmm. beneen bi des ci euh, comme bi nga waxee tamit mooy am na ñoo xam ne ay chauffeurs yoo xam ne dañ leen a investir ci ay liste. Hmm. ay chauffeurs lan. ñii ci wàllu transport la ñuy liggéey. est-ce que ñun waa transport dañoo dañoo dañoo war a toog di leen seetaan. ñu bàyyi leen fi. ñun ñu jël ay politiciens yóbbu leen. taman pour nga dégg koo xam ne. day yëngatu ci wàllu day yëngatu transport dem ensemble national kaasal leen bëriwul. Mm. fekk am na tamit bëriwul. bon mm. loolu lépp am njàngat la. suñu mm. loolu lañ bëggoon ñu toog ci waxtaan ci. Eh, gars yi ubbi ubbi ligne bi. na ñoo xam ne dañ am seen xalaat. ñooñu seen xalaat tamit ñu déglu leen. waaye sëñ Allé dafa mel foofu danaa xaw a wuute xalaat tuuti. fi ma wuute ak yow xalaat tuuti. mooy ñu voté quatre groupement bi ba ñu ma loolu waaye quatre groupement bi bu fekkee ne moom lañ moo fi nommé moo fi dénommé benn parti bi waru ko jaay muy regroupement bi tutelle bi fi nekk waru ko jaay te instant bi ñi fi nekk ñooy jaay carte yi hmm. ñoom ñooy waxtaan seen bureau xool li leen annoncé ñu ne lii la ñuy jaayee carte bi aussi carte bi ndax dana mel niñ bëgg wala déet ak yi ndax dañ ko jaay ñëpp wala déet normalement ci sama yaakaar carte yi bu fekkee ne mooy dem élection ñaar ñi nga xamante ni ñoo war a dem élection seen yoon wut a nekk ci carte yi carte yi dafa war a am dañ ko war a jël toog ko ci loxoy buur mi nga xam ne mooy juge muy sous préfet wala préfet sous préfet sax lañ ko war a jox nga xam ne dañuy tànn ab commission boo xam ne ñi nga dem ñoo war a dem élection ñu tànn fa ab boo xamante ni ah, ñoom ñooy taxaw jaay carte yi nga xam duñu xàmmee Samba ak Demba ak Paate bépp chauffeur boo xamante ni am nga transport en commun dëkk ci commune bi boo ñëwee ñu jaay la carte waaw même sa ki yor transport en commun dëkkut ci commune te di fi daw di fi fay li mu fi war a fay war nañ ko mën a jaay carte mais bu fekkee ne ñaar ñi ñaar ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloo mm-hmm. ñaar ñi ña nga ñaar ñi nga xam ne ñoo war a jàkkaarloo war a seq élection yi mm-hmm. ah kenn ki kenn ki moo moo moo mooy jaay carte yi di ko jaay ñi ko neex aussi sëñ aada loolu élection amu fa sama carte man man nag loolu loolu tamit jàpp fekkee nga gis nga moo dem gouvernement bi bi nekk ci ci ci ci ci au bi mm-hmm. mooy mooy organiser élection mm-hmm. mu tànn ministre de mm-hmm. mooy tànn tamit ki nekk Sénat lépp moo koy tànn si nga affaire fi mu nekkee mooy dafa am benn fiise ku jënd regroupement yaa yaa ngi si fiise ba sa tur sa sant sa numéro permis su nga loolu bu amee su élection dikkee dañ koy jébal su préfet su préfet xool na kat am nañ sans regroupement yépp ñu ngi dox fonctionnaire yi dox de xam nga regroupement moom soo ko renouvelé wul un an deux ans mooy ñàkk nga ko ñi renouvelé yépp ñi ñi kii yépp mi mi ngi ci loolu lépp day day da ci am solo man jàpp naa ne fekkee dañoo bëgg ele élection yi pendant pendance yoo xam ne amul coow yoo xam ne dara nekku ci ñoom mën nañu organiser élection yi mais sous préfet moo koy organiser mais sous préfet su su loolu amee su sous préfet ni mu koy organiser mooy nan nan ko jox fichier bi bu élection yi jeexee bu élection yi demee nan ko jox fichier bi mu lëmbët ko xam ni ñooñu seen niveau ñu xam ni ci ñu xam ne votant yi nii la toll votant yi nii la toll léegi kat ñi ñii dem nii la ñu dem ci élection yu yu yu kii yoo xam ne du du am wax. waaw dëgg la sëñ Aada la waaye damaa dégg ci benn kilifa si ñoom. Mm-hmm. ñu ne bi ñu dem élection yaakaar naa xuma 2019 la xuma. ñu mm-hmm. ne dañ sous préfet bi fi nekkoon instant boobu. daf leen a waxoon benn wax te bu fekkee ne loolu sous préfet bi moo leen ko waxoon kon loolu mooy yoon nag. ndax nee na nee na daf leen a woon. Mm-hmm. woo président Idika mi fi nekkoon. woo président. Euh, euh, Mor Talla Gaye mm-hmm. daane ne yéen ñaar ñi su ngeen demee élection ku mën a gañee bu ngeen paree carte yi da ngeen koy indi fii mm-hmm. ñu ut ab commission bu fi nekk boo xam ne mooy jaay carte yi mm-hmm. bu élection delseetee ku am sa carte dem dem voté ji bu fekkee ne loolu la leen su préfet dox di génn kilifa nag ci ñoom ñu nga ngànk transport euh, en commun bi moo ma wax loolu noonu loolu yoon noonu waaye neenañ bi yàlla dogal ñu dem élection président Idi gagné kilifa googu nee na président yi di respecté wut loolu. dafa kon ay cartes téye ko à mai léegi bu ko téye à mai nag nga xam ne depuis waxu kilifa googu à nos jours xamuñu nuñ ko jaayee nuñ ko jëndee ñu ngi naan yi am na euh, signature yi amul signature. xam nga xam nga xam nga ñoom li leen waxoon. Hmm. idi idi du ko nangu même même man su su ma nekkoon place bi sax du ko nangu. Hmm. déedéet. Hmm. du ma nangu man. jiiteeb garage. dem élection gagné ko. lu nekk ci valable gagné lu bëri. et puis tamit ñu ne ma da ngay def commission boo xam ne ñee dañ ci bokk ñee dañ ñu ñu ñu def ko su préfet hmm. ku ku dagg ñu xam ko déedéet hmm. loolu am amul ci benn garage hmm. lan moo ko am la li fi am mooy benn fichier la ñuy defar mangaan am na regroupement nañ ko bind mangaan aale mangaan la tudd ñaari aadama ngaan mën naa bokk mais numéro permis du du doon benn. Ah, ak lieu de naissance bi. waaw. Hmm. ñu ñu ñu ñu def bind numéro permis def def lieu de naissance bi. Hmm. mais nag mën nañoo bañ a bokk. Hmm. su demee ba élection rek fichier boobu ñu bind moom la ñuy yóbbu sous préfet. sous préfet sa fichier boobu la su lay sukkandiku. su boobaa avant élection yi rek day woo ñaari candidats yi. ñu ñu vérifier fichier bi. ba xam baax na wala baaxul. ba xam fichier bi. ñi ñi ci nekk ba am na am na am na carte wala amul carte. su boobaa benn loi am na koo xam ne sàcc mënu ca am. est-ce que c'est sûr que ne ku bëgg carte ñu jaay la. ah lo lo ma si loolu loolu mooy yoon ku bëgg kart ku ne. amul amul jolof nga dëkk. Mm-hmm. amul foo mën a dëkk. Mm-hmm. sëfoo dëkkul fenn. da da da da ngaa war a ñëw ñu jaay la ko mais man d'accord ma ñu ne. permis koo xam ne permis am euh, Touba la dëkk wala wala kii da ngaa war a wate loolu bu ñu ko defee mën nañu wate quatre cent quatre dimanche du jeex. Mm-hmm. ndax kum neex nga. comme neex nga nga nga nga dem ci dëkk dëkk bu la ne wut say nit comme nit ni ni gars yi def rek. dem dem beneen dëkk indi indi indi fa ay vacances ñëw loo ci man ndulam ngaa bu ñëpp ci région Diourbel lañ bokk. su boobaa du jeex. élection yi day bëri day bëri nit. élection yi day du fa bëri. Hmm. day bëri duñ fi jóge. kon daal da boobu bokk. maanaam ñi bokk. Hmm. ñi am ñi mu jaral am regroupement nan yow man mën ngaa bokk si gàllankoor am regroupement. Hmm. boo xoolee jaja wàcce amul amul regroupement. ndax regroupement man li mu demee daaw wàññi woon ko ba vingt cinq mille. Hmm. te pourtant ñu bëri amoon ko. Hmm. est-ce que c'est sûr loolu wér na. non wér man ki ma ko wax. Hmm. nee na ma wa deux mille dix neuf wàññi nañ ko ba vingt cinq mille. chaque élection gars yi dañuy suñu bëggee gaa yi am su élection yi jàllee dañuy wàññi wàññiwaat dañuy dañuy wàññi prix bi. pour gars yi am regroupement. su amatee ay quelques mois ñu ajaat ko. mais wàññi nañ ko mais gars yi kenn dëggul. sinon dafa loo xam ne seen faute la. dañuy gis lu yomb ñu bàyyi ko du dagg regroupement hmm. ba jour élection ñëw ñu bëgg a taxaw ci kii bi nangam nangam loolu ay ay wax la indi rek hmm. wax la indi rek waaw waaw sëñ Allé xam nga aussi ñi nga xamante ni ñu ngi wax naan na ko nañ ko voté comme permis waaw euh, njëriñal gaaraas chauffeur la concerné hmm. concerné wul keneen te regroupement bi nga wax ne nañ ko voté euh, bu jaaree ci yoon war nañ ko mën a voté mais damaa dégg ci ñenn ci opposition bi ñu ne regroupement bi dafa jaarut yoon te da ngay gis chauffeur boo xam ne aussi mu ngi sonn ci transport bi loolu di fay mandat di fa dawal oto di dagguru si di def lépp mais amul moyen nu am carte. wala comme li ñuy wax xaw ma dëgg la xaw ma dëgg nanguwuñ koo jaay carte te moom kon léegi mënut a def mënut a dindi yaakaar yaakaaroon xalaat sama xalaat. Hmm. bépp chauffeur boo xam ne dëkk nga ci kuréel te transport en commun kooku kooku boo amee oto di daw ca gaz ba concerné na la boo ko amul di fa daw concerné na la man yaakaar naa transport en commun bu dëkk commune Touba war ngaa mën a dem voté ci élection président gaaru président gaaru ci bu bu bu kii ndax bu fekkee ne carte bi rek la carte bi permis bi état moo ko reconnaître mm-hmm. mais carte bi état reconnaître ko mm-hmm. non non carte bi regroupement bi ñoo toog waxtaan ba juboo tànn kenn teg ka fi mm-hmm. kooku noonu mooy jël xalaatam liggéeyee carte bi ñii ñoo présenté ko list dafa war a am xam nga ne lii li ñuy wax ni jàmp na trop ci élection yoo xam dañ naan des na deux mois ci des xaw ma moo tax ma ne woon est-ce que duñ jël bépp permis bu dëkk ci commune bi nga xam ne garage bi boo fa doon dugg tey mu taa yow concerné la boo fekkee ñu defar ko concerné la yaa ngi dégg est-ce que doon jël kon permis yi permis ndax chauffeur permis nañ njëkk xamee chauffeur te permis mooy li nga xam ne diplôme bi na état moo ko reconnaître est diw sàngam mënta am permis nii rek doon commerçant wala éleveur wala baykat am permis noonu ñoo ñu jox ko carte mu ñëw di voté di def ak dindi ci garage bi te diw sàngam mi nga xamante ne yore transport en commun te mënta am carte mu nekk ci garage bi mënu faa tekki dara carte bi bu légalee jaar yoon teg fi mu war a tegee. ku ko bëgg am kon nu mu la neexee. boo yoree xaalis carte bi war naa voté mais damaa gis mbooloo mu bari moo xamante ñu xëj ci transport taxaw na man dem naa génne sama na jaay ma. ñu ne nangu leen a jaay bu émission bi laajtee ma cité ma cité ne la diw ma nga ko wax ñoo xamante dama leen xam bu baax ci transport ñu ay nit transport en commun transport laay ma sa xamee ñu ne jël nañ seen xaalis taxaw ba un jour taxaw nañ seen xaalis bëgg a jëm nangu leen a jaay carte moo tax carte yi seen àll lu jar. xam nga xam xam nga loolu tamit maanaam au maanaam autorité yi. Hmm. responsable lañ ci. waaw kay baay yaa ngi soo a ñëw. xam nga maanaam autorité sous préfet. Hmm. moom mi xam ne élection yi. ñi ko war a gën ci la bokk. mënoon naa dem ñooñu ñooñu nan nan nan nan dem sous-préfet si nga réew mi day am loo xam ne parfois. da ngay gis benn fekkee si wàllu politique. nit def dara. ñu ñu ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko feneen wala ci ay ay kii yoo xam ne ay ñu fa àtte. mais ñooñu kooku bu demee. dem jëndi carte ñu bañ. dem sous-préfet. na ko dama dama doon jëndi carte ñu bañ. dem ci yoon daal. dem ci yoon waaw. Mm, mm, mm, est-ce que est am nañ droit bañ a jaay carte. ndax jàpp naa jaay carte ñoom mooy seen. bénéfice. seen bilan ci leen koy gën a mën a. ñoom fi toll li rëccul ci war war nga mën a récupérer ci carte. ñoom li rëccul ci carte. wala ñoom tamit jënd jënd rek ñoom ñoo toog ci donkaase gi. suñ mën nañoo jënd lu mat cent personnes du leen wàññi dara. moo tax carte mënut a voté aale. carte daal di toog tàppale yu ci carte. non eh, corruption dana ci am. kaay ma jëndal kaay ma jëndal. la carte non déggoo li ma xoolal ma am carte. kaay ma jëndal la carte rek wooteel ma. loolu da mënu cee ñàkk. alors alors. loolu mënu ci élection. mais mais xam nga permis moom kenn mënu ko benn benn président groupement mënu koo jox sa wër. moo tax permis war a woote. di di gis nga bu ko defoon. déggoo léegi am na gis nga bu defoon permis tamit. am na koo xam ne jaral na ko mu ne. Hmm. naa am samay booy xam naa leen paasal transport am na ñoo xam ne mënuñoo paasal transport mu dem naa leen paasal transport. waaw si. mais kaa li permis di li nga daj sa permis. doo ko damay jàpp ne yow li nga daj. Hmm. pour organiser permis. Hmm. ñu wote. ah du mu mënut a nekk benn fan de. permis moo war a wote gis nga am na ci élection yoo xamante ni. dañoo jékki-jékki gis carte yu bëgg a ëpp sa ancien carte yi. léegi bon bu bu ñu waxee permis bon. Hmm. maanaam ki ki fi dëkkul te te amul carte moom gi moom moom bokk ci élection yi. ki fi dëkkul te amul carte. moom bokk ci moom. non xam nga élection. garage commune Touba la ñu wax. waaw. yaa ngi dégg. waaw kon garage bi commune bi la. mais mais transport dafa nekk loo xam ne. Hmm. genre dem ak dikk la waaw. waa Touba dañuy yebee fii dem Ziguinchor. waaw ah, waaw waa Ziguinchor yebee fii. mais waa Ziguinchor dañoo am seen élection am seen gaaw. non waa digul ma. Hmm? nit dama ñëw digluwaat rek. Hmm? yow mën ngaa dëkk Ziguinchor. Hmm? doo am carte regroupement foofa. ñëw Touba gi am am fi carte regroupement. xam nga man dama fi nga bokk. xam nga man dama daa ci permis. waaw ñu def ko élection nationale. nga xam ne tey suñ doon dem élection nga ne nga ne waaw suñu daam sama xarit la daa dem élection dem jolof gee bopp sa chauffeur oto këriñ yëpp <laughs> indi leen seen i permis ñëw voté loolu moom daa ko ruma ci ndax ñooñu eh. bu ma defarut garage bi yàqoon leen daal ñoom dawul fi fanaanuñ si mais normalement pour ñu bu mu gaaw waake pour ñu tëj point bu mu gaaw mooy mm-hmm. su mu jigee mooy mm. bala cee wax gën a bëri mm. mën na question bu moom mm. war naa ubbi boppi nit ñi ñu xam ci ban kii lañu la ñuy demee loolu bala ngeen dem élection daan na moom hmm. ñi toog ci nguur bi. Hmm. Euh, seen candidat bi mu tudd sax. Baye Ndoye Baye Ndoye hmm. man ki ko jege laa laaj tey mu ne ma ñun. woteewul. waaw si duñ ko nangu la ñuy wote duñ ko nangu. waaw allez. ñoom mais man bu ma leen ñoom ay du wotee carte ndax carte yi baaxul baaxul. amul signature signature la ñuy wax amuñu secrétaire général su ñëwee ko kase wu nangal nam ñun dañuy jàllale. di leeral mais amuñu ci dara loo xamante ni lu ñu leer la. amuñ dara lu loo xam ne lu ñu leer la li nga xam ne moo ci ëpp solo normalement permis de conduire commune Touba ki nga xam ne adresse commune Touba la moo ne ci permis kooku moo war a voté élection yi sama sama jàpp parce que carte boo xamante ni kenn ñaar ñuy dem élection kenn ki moo koy liggéey carte yooyu warut dem élection suñu àll sama jàpp jàpp mais même même gouvernement demal demal la gouvernement problème élection sax ki nekk ki nekk si gouvernement bi moom mooy defar carte yi mooy am ministre de l'intérieur mooy defar carte moom mooy defar carte. kenn koo xam ne. kenn koo xam ne kenn koo xam ne nekk na ci nekk na ci kii bi nga nga nga nga nekk opposant ñu ne la kaay ñu boole nga defar carte amut. amut. numéro téléphone bi. waaw amut. loolu amut. mais ne gouvernement bi mooy defar kii ñi nekk ci kii bi ñoom ñoom ñoo koy def. non xam nga aale. dégg li ma la wax dama ne la. aale dafa am suivi. Mm. su ministre de l'intérieur defaree carte. Mm. waa Sénat dañ fee nekk. ñeneen ñeent fee nekk. ak ñeneen ñoo xam ne CEDEAO CEDEAO moo leen envoyé pour ñuy pour ñoom ñun pour pour ñoom ñuy surveiller élection yi. mais loolu day am. mais dafa jàmp li ñu wax lu tax lu ah ah ah waa léegi waa léegi. ñoom cinq ans waa léegi élection yi passé. waaw ak carte yi ñu naan baaxul. fu sous-préfet nekkoon bi bon bi carte yi di bon. bii sous-préfet. sous-préfet fu mu nekk bi ñuy defar carte yu baaxul yooyu ñu naan baaxul. dama ne loo loo maanaam loola nag loola loola garage boo dem. Hmm. moom may defar ay carte de groupe man sama carte de maa sama bopp maa ko jaayal sama bopp. waaw kenn du ma ko jaayal. Hmm. maa ko jaayal sama bopp. Hmm. soo dikkee dama dama ma ne la temps ngay dolli. doo amut ma koy jox. xam bind sa tur. bind sa sant di bind sa xam naa yàgg xam naa yàgg ci transport mais est que xam nga carte yooyu au départ pour lan la woon. carte yooyu pour la woon. da bokk naa ci gaz bi. dem yaa nga ut regroupement mooy gaz bi reconnaître na la léegi am mën nga fa am financement mën nañ lañ fay dimbali mën nañ dafay lewal mën nañ mais élection bu ma sànni nekku na carte bi moom mooy voté da ngay voté permis regroupement bi nag mooy booleel na la ci kees gi waaw regroupement bi loolu mooy boole na la ci kees gi soo am regroupement yow ñëw yàpp dem nga fi am ndax am nga droit yàpp fa mais regroupement bi moom moo lay boole na bokk nga ci kees gi mais quand dem élection voté war a nommer wala dénommer nit kooku man ci xalaat man ak nii ma gis ci ruugu bi ak lobby yi ci nekk lu tax ñu insisté ci ne carte la ñu vote lu tax ñu mooy moom mooy moom mooy vote loolu dafa jëlee lijjanti te daanaka ndam yi ñu am yëpp ci carte lañ ko amee kon léegi est-ce que def changement enseigne mhm. xam naa ne bàyyi mu nga jéem a répété numéro téléphone bi waat euh, pour gars yi xam naa ne ñu ngi ci yi bu mu ñëw dugg bi ku bëgg da ngay wax 88. 628 53 53. pour jot nii ci ci ci ci kii bi. Euh, euh, buumu jokkoo bi. waaw ci buumu jokkoo bi. Hmm. comme comme li nga wax nii man moom. Hmm. li ma d' accord mooy. Hmm. nan demee carte carte nan demee élection pour carte. mbaa xam nga ne kon ñooñu nga ñëwaat. non xoolal bon bon bon ñoom seen campagne des na ak seen liggéey des na cinq ans lan fi toog. cinq lan toog di liggéey. cinq du benn fan du ñaari fan. mënoon a toog cinq ans mu fu mu nekkoon. mi ngi ci garage bi. non fan la nekkoon cinq ans yi. mi ngi Touba mi ngi ci garage bi. mais dafa dafa bokkoon ci gouvernement bi bokk ci gouvernement bi. da bokk ci woon. ah bokk ci doon jàppale. Hmm? élection yi la passé. waaw. ah waaw. léegi bon kay moom système bi la bokk. Hmm. léegi nag mënoo bokk ci mbir. Hmm. ba tey xam ni muy doxee. ñoom moom xam na ne Idi Idi noonu la defoon ba ba ba ba gañ. xam nga su bokkutoon système bi nga ne kii xamul. mais moom xam na ni ni muy def. li li li tax mu bañ carte yi. xa xam na ko. jaana yow aala yi dëgg ji may wax. dèjà yow léegi leer na la carte yi moom la ñuy nommé moom la ñuy voté échange mais valable. carte yi waaw ah, waaw carte yi valable. valable waratu dem élection sax. carte yi pourtant nag xaw ma léegi nii nangu nga xaw ma nangu mais bëri na gaaru cee yoo xam ne permis fay voté mi ngi yaatu léegi de. Hmm. Touba gi laa xam waaw si am na garage yoo xam ne permis moo fay voté am na mi ngi commencé di am. yow da ngaa jàpp ne bu ñu wootee permis. Hmm. maanaam favori bi ci ci ci Moustapha Diop la. du problème mu xam nga permis hmm. man mënoo ma su ne tey soo ma mayoon carte. waa ñi ñi la la la moo tax nanguwul gars yi dem ci carte. waaw carte yi benn nit bee ko séeréer. ah ña ñaar ñuy xeex kenn kee ko yor. waaw léegi la. Ah. na leen jox li ñu rut. Hmm. permis kenn sa permis yow a concerné. Hmm. waaw ndax tey su ma as gor laa su ma ne aale sama xarit la. Hmm. ma ñëw ma ma bokk ci regroupement bi. di fay ko di am li lépp lu ku nit ku wateel pour nga toog fi. waaw ah waaw léegi bi nit da ko wutoon moom bi di ko may xam nga mënoo ma may sa permis mu ne ma may sa permis xam nga alors ah, ka permis moo war a voté buñ buñ duggee ci yoon dëgg chauffeur permis permis moo war a voté waaw léegi nag boo voté ba ki fi toog toog fi amoo carte regroupement cent franc amoo ko ca kees ga waaw mais pour ñu nommer président bi moom chauffeur bu nekk dëkk am nga droit jógee sa gaara dem nommer ne na kii ànd naa ci kii wala ànduma ci kee carte regroupement bi nag ku ko am bokk nga ci regroupement bi bu ñuy séddale bu ñuy dédommagé da ngay bokk mais bu wootee desee nag loolu teg fa kii ak tegg fa moom war benn nit ki warut nekk na moom mooy jël euh, xaalis moom mooy jël ay kartam di ko jaay parce que man bu ñu man ñoom ñoo yem ci mais kenn ki dafa taxaw ne carrément ñun ñu yor suñu xaalis bu doy dan naa cee cité ku mel ne sëñ Pape Dieng Pape Dieng mi nga xam ne moom mooy topp ci Galas Diallo mi nga xam ne moo jiite union des horaires man Pape Dieng toog naa dégg mu ne maa ngi yor sama xaalis ñu bëgg carte ñu ne duñ la jaay na bu loolu continuer sëñ aale élection bu normal du fi mën a am parce que écart buy passé ci élection yi est ce que xam nga ko deux cent et quelques différence. votant waaw ah, votant waaw loolu. mais membre idi nga. membre idi nga. man man idi déggal micro ba wax li nga wax ñëpp dégg. man man idi ma ah, rek man idi. Ah. idi musuma ka fekkee gis naa ko ni ma xamoo benn xamu ñaar yoon laa ko laa ko may gis. Hmm. bon man man faraluma ci faraluma idi faraluma Moustapha Diop man dañoo yem ci man. waaw ñoo yem ci moom waaye nag xam naa képp ku ci gagné tamit. Hmm? man deful deful la dara daal. déedéet deful ma regroupement bi fi jàll deful la dara. ah bi fi nekk deful dara. gisuma ko de. ah moo moo tax amul benn intervention yow da ngaa waroon a changer nag kon yow ndax normalement. yow amul benn intervention bu ma defal. Hmm. amul dara lu ma defal. waaw kon yow léegi. man man man Idi Idi gagné Moustapha Diop gagné. Hmm. Moustapha Diop sax. ni ma miinante ak moom. Mhm. miintu ma ko euh, bi bokk. Mhm. nu mu tudd sax. kii eh, kii Baye Ndoye. Ba Baye Ndoye nag. Ah. mos na maa woo téléphone. Mhm. gisante ay ndaje. ay taximaan ay tax yeneen taximaan. ma xam ne kii xañ na. ku ku am ku mën a jëflante doomu aadama ndax mi ngi dem si nit ñi. waaw ah. Baye Ndoye man mus musuma jox loxo. Idi sax mos naa kaa jox loxo benn ñaar xaw ma ñaar waaye Baye Ndoye musuma kaa jox loxo. jërëjëf sëñ Alla ñu ngi fi ci ci Assalaamy FM ak Assalaamy TV 99 point 0 mooy mooy fréquence bi ñu bàyyi xel bu bu mu jokkoo bi si 88 628 53 53 mooy bu mu jokkoo képp koo xam ne ba ngaa àddu euh, ci émission yi mooy bu mu jokkoo bi 88 628 53 53 fii ci FM ak Assalaamy TV sëñ Alla kon xam naa ne léegi dèjà dafa mel li ma la waxoon dafa mel ne ñëw nga ci. dafa mel ni léegi moom d'accord nga ñëw nga ndax li ma lax wax man nga maa may carte ma voté la mais mënoo maa may permis ma voté la kon léegi loolu d'accord nga ci mu fekk si nga ma ci. élection nañ ko def carte euh. xam nga xam nga dama ne hmm. même tey jii su ne woon su ne woon transport moo koy eh, moo koy def. Hmm. ku dëkk tuubaa hmm. da ngay koo xam ne jaral na ko. mu wut ay boom yoo xam ne am nañ pois lourd mu mu mu wutal leen transport. xaajatu fi. ah xaajatu fi. non dégg nga xoolal. élection yi sax man mën nañ kaa dàq. waaw comme ni ñuy ni ñuy xëccoo nii. Hmm. ku nekk naan léegi laa. mën nañ kaa dàq aale aale a ne sous préfecture ay borom xam-xam ñoo fa ne. fi mu tey nii. permis mën na koo voté. Hmm. mën na koo voté ba pare. Hmm. ñu daan ne mais ñoom instant yi ba nii. maanaam consensus bu leer amagul. non amagul moom ndax dañuy wax ni di wut a voté. waaw xam nga bu consensus wut a voté. waaw bu ko permis woon voté fi nii. élection 2024 la terme 2024 warut a wote même carte 2024 warut a wote parce que da ngaa dem élection mën ngaa jékki-jékki créer 2024 warut a wote muy carte muy terme warut a wote waaw kon léegi xam naa ni ñu tourné débat bi dem suñ suñ digg ci législative yi ñu jëm ni ma déggee ñu wax daa xam ne yéen da ngeen a bëgg a doon ay député daal léegi yëpp léegi daal xeeb ngeen taxi daal. non déedéet waxal rek wax ma de da xam ne nee na xeeb taxi daal léegi. li ma gëm mooy mhm. si nga ki balaa baax dëgg dëgg. Mhm. day am vision. Hmm. di gis fu sori. Hmm. wala ngay yuqamti hmm. booy xoolee gisoo. da war a samp say tànk. xool fu sori. xool ensemble la daal. non du xool ensemble waaye da ba bokk fi ñuy laajee waaye munoo bokk chaque jour. ngay tàllal nit ki. te ñun dunoo transport dafa dafa mel ne. dafa dafa dëkk jëw defal ñu. loo ñuy defal. te nga nga mën a bokk ci fa ñuy fa ñuy séddalee. man faa dem laaj te ña fay dem loolu ay ay loolu fa yóbbu. ay carte baat askan carte rek yow nga yor ay baat hmm. si nga tey ji war naa fekk tey jii hmm. sur na article nangam hmm. sëfoor lañ ci teg article un sëfoor la war a doon article un sëfoor la war a doon waaye fi toll nii xamuñu lu lu ñuy bàyyam ah instant yi daal mooy oto jo oto jot na nan jël sëfoor si dugal leen ci biir nekk fi ratatatatat wax bu suusu asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ bi ma lay ziar loo tudd fay woote waaw kooku sëñ Ousmane. Hmm, bi leeru lool de. sëñ Ousmane. waaw ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay ziar sëñ Ousmane. yëngu yi. ñu ngi fi ci émission euh, euh, transport. ndax mel na yaa ngi koy teewlu de. alhamdulilah. Hmm, hmm. di rafetlu émission bi. xam nga waaye li ma si jot a teewal am na solo lool. xam naa bu ñu mënoon ñëwaat rek fii. dëgg la. ñu bëgg ñoo teew. carte la ak ñu bu ñu ci mënoon a jëndee kenn ñu leeral téléphone bi. waaw wala bu ëllëgee fekk at na bi. ñu beral leen. Hmm. dina dem dana gën a leer bu baax a baax ci askan wi. dëgg la. Ah, ndax xam nañ ne sax loolu sa euh, ko hmm. hmm. mel noonu. léegi nag dindi ko ci itam dana am solo lool ci ñun. mooy tax itam bu ëllëgee bu nit ci demee ba yor oto war a bokk taay. dana xam naka lay doxee ak ki doxee. dëgg la. parce que man dama jàpp ne képp koo xam ni yaa ngi sam réew. bépp euh, yëngu-yëngu boo xam ne ñu ngi koy. sëñ Ousmane waaw daa mel ne xam naa liñ moo dagg jërëjëf sëñ Ousmane ñu ngi koy siyaar bu baax di sunu xarit lool bëri lu muy àddu ci émission bi ñu ngi koy siyaar bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal. sëñ Alla xam naa sëñ Ousmane ndox mi ne déggante bi moo desee neexul waaye lu mel ne comme ni ma la ci loolu la doon àddu kam mhm. ah, ni ñu ko waxee rek noonu la mhm. Euh, xam naa ne yéen est-ce que yéen état daggalu leen ci liste département yi. ni ngeen wax ne nguur nguur gi ngeen commencé taal loxol parce que dafa na nga commencé campagne. non du état xam nga ñun buñ bokk ci wut état. day hmm. day mel ne. Hmm. danoo danoo maanaam xam nga état moom maa ndeg moom amatul looy bañ. Hmm. man su ma su ma sañoon. képp koo xam ne da bokk ci bul bul bokk ci état. demel ci list boo xam ne. bu ëllëgee da nga am sañ-sañ wax sa xalaat. da nga am seen liste bopp. waaw non man nga am seen liste bopp sax. Hmm. mais liste yi bëri nañ fi. Hmm, Alassane Ndoye. Hmm. docteur Niane. docteur Niane du chauffeur de. ah mais du chauffeur waaye dama xam nga man ngaa bañ nekk chauffeur. mais ñu investir ci ab liste. waaw sori nag. mais est ce que bu boobaa boo demee ensemble parce que Sénégal règlement de compte lay doxee de. déedéet xam nga xam nga xam nga dafa am ñaar. soo ne leen man ab chauffeur laa. su ma demee chauffeur laa fay toogal. buñ lay investir liste bi chauffeur moo tax ñu investir la. pour sëfoor si xam ne diw. Aydara Ñaŋ mi kat investir nañ ko liste bi. Mhm. sëfoor la. Mhm. bëgg sëfoor si jàppale ko moo tax. Aydara dañ ko investir. waaw mi ngi si liste su. Alassane Ndoye Alassane Ndoye. xamoon naa booba lay doon. léegi nag liste département wala national. Hmm. gab mi ngi si liste bi. Modou Bopp. Modou Bopp waaw. Ah. ak ñeneen ñeneen. Hmm. ñooñu ñëpp na sëfoor si dañoo war a toog. Hmm. xool kat ñun. suñuy nit fu mu bokk. ñoo xam ne bu ñu dee ensemble fu ñu ñu waxal. ci mënu uma kii na wateel ay dara kii na man xaw ma ku la neex ne nga wateel. waaye bëgg naa ñu xool. xam nga bi élection présidentielle yi jot dama dama leen. xam ne riiru ndóom yi dikk na. waaye xool leen programme bi gars yi. ba xam gis ngeen seen bopp. xam nga da ci am solo. da ngay dégg riirloo mais di xool programme da ci am solo. Hmm. législatif nag di xool sa internet. sa gars yi yeewuñ de. parce que xam nañ li ngay wax ni dëgg dëgg. non xam xam nañ ko. Hmm. xam nga législatif beneen beneen beneen élection la. Hmm. moo présidentielle bokkul. c'est pas les yow ki ñu koy yóbbu day dem pour waxal la. ki ñu koy yóbbu. dafa war a jaral yow bu ñu demee département département la ñu jël kenn. yóbbu ko fa. boo ko mu dem rek di nelaw wala mu dem lu neex président rek mun a neex na. ku yëkkati loxo mu yëkkati loxo pare te di nelaw. bu weer dee fa fayeeku mhm. jël kéem loolu mhm. àq la li lay fa yóbbu de ko xool di dugg ci nit ñi xam seen seen i seen i seen i bëgg-bëgg mhm. wér na ma ne wér dema ne ay ah, ah, ah, dara ñang tey jii bu bu dem ensemble national wala gap dem ensemble national wala Modou Bob moom nga wax dem ensemble national mooy moo ah Modou Bob mooy gap Modou gap Modou Modou Bob mooy mooy mooy gap oh, oh. léegi ma ñoom ñaar bu demal ensemble national jàpp naa ne parce que ñooñu dañoo dund transport ñoo ñooñu cent pour cent transport xam nga pratiqué ñoom nag ñoo dañoo. dañoo théorie pratique. waaw dañoo théorie ak pratique. xam nga duñ benn. Alexandre bi ñaa ña ñoom seen kilifa gi ña ña ñaata yoon dem Assemblée nationale. waaw am na Alba dem na fa ci liste PDS yaakaar na xam ni nga wax ni Ba Alsane dem na fa ci liste PDS. man de musuma gis Alassane Ndoye toog taxaw fee di di di di di perdel li muy li muy am temps antenne sax bëriwul. Hmm, temps d'antenne li muy am bëriwul. kanaa hmm, hmm. ministre de transport. dem di dem di wate bis loolu obligatoire la. waaw c'est vrai. dafa jot ne koo xam ne yow chaque yow chaque jour transport ngay wax. même amoon nañu fi ab ab ab député. kiiw chef de garage su Kaarang bi. waaw waaw de su ngeen kon Saalum. ah ki dëkkoon Saalum. waaw nu mu tudd. waaw nan ña. waaw waaw waaw euh, Pape kii Pape. Pape Ndiang Pape Ndiang waaw. mais kooku kooku tamit est-ce que moom ma nga gis mu am tendance wax. Mhm. ay complexe la. Ah, waaw. xam nga li gën a <laughs> bon mooy nga bokk di pare nekk ak complexe. mbaa dugg doo nekk complexe. Ah, mbaa dugg ci liste yi rek mel na mel na am nga fit ci liggéey mbaa dugg ci liste yi. du la. dugg la ci liste yi. non man su ma bëggoon dugg dugg waaye mais. Hmm. man moom wax dëgg yàlla du dugg ndax xam naa ne. Hmm. parce que man moom su ma demee bay dugg. Hmm. danaa nekk koo xam ne damay jàpp ne dana ma jaral campagne mais bokk ci liste boo ne da lay dégg doo doo doo nekk député. yokk yokk sa tur rek. man loolu moo tax ma leen man moom wax dëgg yàlla. déw ma bokk ma tamit. mais da nga jàppale ay sa doomu lay. ah Aïdara sa doomu lay da nga ko jàppale. non oh, non ay ay ay ay damaa damaa jàpp ne man li ma naqari. li ma naqari moo naqari ay dara. Mhm. moo naqari muudu bopp. Mhm. gab mhm. xam nga bu ne muudu bopp ñu bëri xamuñ ko. mooy gab dañuy egg si turu gab bi. ndax dëgg dëgg mooy gab. maanaam mooy muudu bopp mais nit ñi xamuñ gab. gabu tey jii boo doon boo doon wër sama tur tey dëkk bi boo boo boo doon wër aada doo ko doo ko xam. mën ngaa lan xam mën ngaa waaw lan wax gab la ñu demee si si si si liste bi. muudu bopp la ñuy gis. gab moom mooy dëkk ba. borom dëkk ba borom dëkk ba lañ ko. waaw waaw moo tudd moo mu non man ngay dama jéem laajte naa ñu ne moom borom ki ñu ko tuddee moo. moo borom mooy sëriñ bi mooy sëriñ mooy borom dëkk waaw mooy borom man daal bëgg naa transport. Mm-hmm. amay ji moom mm-hmm. Mm-hmm. mu jéem kaa jëli. jéem a bokk fa ñuy séddalee. moo gën ñu lay sédd chaque jour. ñu lay sédd chaque jour. te mu nekk ñoo xam ne am de transport la. ñoo xam ne dañuy dund transport. waxuñu ñoo xam ne dundul transport de am ñoo xam ne dundul man tey jii su ma doon kii tey jii. ñii ñëpp ay góor xuma ak Alassane ñëpp dama faxas ñeneen ñu bees ñoo war ñoo war a ñëw. syndicaliste yooyu ñëpp danañ faxas. seen bopp doog leen fi nekkal. bul moom man man man maa ko wax. Hmm. waaw na da maa bëggoon dama yow ku fi nekkul moom yow yow même yéen ñi di gas seen bopp. xam nga xam nga yow. Hmm. soo bayee ba élection yi nga ne ab lis. Hmm. tey jii bu bu demee ba ba élection yi passé nga nekk député. fàtte nga fa fàtte nga non ñaar ñi moom président ay Niang ak président gàpp ñaar ñooñu am naa ci ñoom yaakaar ne bu ñu taxoon ensemble am danañ bàyyi xel sa mais euh, benn député est-ce que ñoom xam nañ la day may benn député. xam nañ ne. xam nañ li lay may benn ñaata carte moo lay may benn député. no xañ na. ay junni yu bari ngay dajale. ah ay junni yu bari ngay dajale ay junni carte yu bari ngay dajale. no xañ na xam nga xam nga xam nga loolu rek. Hmm. xam nga ñaar chauffeur nekk Touba ñoom départemental de Mbacké lan la la leen. Ah, investir ah, ki nekk premier ki nekk deuxième. Hmm. gis nga suñu bëggoon ñoom ñaar ñu dem assemblée nationale dañuy dem assemblée nationale ñaata sëfoor fi nekk département moom déggoo hmm. na trop xam nga département tam Touba la du ah, Mbàkke ah, waaw waaw électeur bi Touba la hmm. ñaata taximan moo fi nekk mais nag ci la bokk waaw ci la bokk bul tuddati commune day bi bu ne département de Mbacké. Touba moo yor électeurs yi. waaw moo yor jërëjëf moo moo yor mbooloo peuple bi moom moo yor mbooloo. waaw waaw soo gañee Touba ga da nga. Touba moom mën nañu leen a yóbbu moom bu ngeen voteelee mën leen a yóbbu mais ce que c'est sûr que chauffeur sa waay nañu wayu nañu woteel. xam xam xam xam nga lan moo des. Hmm. sensibiliser ñoom ñu xam. Hmm. li euh, élection législative lan la. Hmm. ak lan moo tax ñu lay yóbbu ensemble national. du nekkul fay toog di xuloo rek. comme bi bii jàll. ah dañoo yooyu dañoo xuloo. non comme politiciens yi dañuy def rek. <laughs> politiciens yi ñoom. politiciens politique ñëw na bu ko defee ñoom du duntal politique. Mhm. waaw xam nga nit ki boo demee ba tey jii xam nga xam nga dafa am loo xam ne soo demee ba benn benn parti woo la lu mel ne benn parti dama lay investir. Mhm. nit ki bu abalee bët fu la neex ngay xool. Mhm. waaye nag ñoom seen bopp war nañu mën a gëm seen bopp. ndax li tax ñu tànn leen ñaar ñi nga xam muy président Gab président Aydara wax dëgg yàlla nit leen loo xam ne nit ñu département bi bàyyi na leen xel commune bi bàyyi na leen xel ñuy nit ñu baax ñuy régler ñu yaru ñoo xam ne aussi chauffeur si xam nañ leen ci intervention ci xeetu dimbali ak yu baax baax yu ñuy defar chauffeur si man sama benn membre euh, ci fédération bi la bokk président gaara sax ku mel ne président Kabou Gueye am na am na membre bu am jafe-jafe keroog bi ci président gab jotee fi mu toog a toog jël téléphone woote ñu lijjanti ko. mais xam nga kooku da ngay bàyyi xel di trop. gis nga hmm. vrai koo xam ne yow. Hmm. da nga ne man transport moo ma tax a jóg. Hmm. doo xool ku bokk ci yow. ak ku bokk ci yow. man jàpp naa tey ji boo fekkoon ab xeex. waa ji xeex ba ba ab permis daanu. man borom borom permis lay fay. <laughs> xaw ma waxuma la yow man xaw ma di mais nan xeex ba ba permis wadd rek. nga gis ki ko waddee rek bu permis waddee rek man borom borom permis la fa rek. <laughs> wala déggoo fi ma lay waxee. ah ñuy xeex ba tey jii ba ab permis wadd. Hmm. borom permis la laay fa rek. ki permis waddee ci poosam daal. moom moom fa rek. Hmm. mais nag transport moo dépassé. Hmm. ay man kii fii laa far. kii sa déedéet. sa sa boo fekk mu nekk ci ay jafe-jafe dimbali ko. sa morom sa góor looloo muy mu panne pneu secours mu mu paan leen ak leen loo xam ne mën kaa dimbale muy ndox loo xam ne mën kaa dimbale mm-hmm. dimbale ko mm-hmm. soo ko fekkee alkaati ko sonal ci nangam nangam da nga mm-hmm. xam mën nga def intervention defal ko intervention man da ngeen ma am lu may lu ngeen ma jaaxalee tuuti seen élection bopp day ñëw ngeen ngeen di tëggante ay yat di tamante yi dëmm lu ne ngeen waxante ko seen biir te bu ngeen demee lu mel ni présidentielle wala législative yéen wala leneen loo xam du seen du problème mu kese da ngeen daw mànkoo doo dajee ba mel ne ñekku na yéen ñi yéen a doon xëkkante loolu lu ma jaaxal la ci chauffeur aussi. waaw xam nga loolu maanaam ñaari intérêt yu daje la. Hmm. maa ngi yow ñooy ñooy xëccoo dara. Hmm. fun jaar bu nekk ci dëkk bi il faut ñu njëkkalante. Hmm. waaye su demee ban ban xam ne kat loola jàll la. loo xam ne intérêt boo xam ne si ñun la jëm si. ñun dañoo doon dañoo war a àndandoo. xeex ko pour mu ñëw si ñun. xanaa xamoo ñaari ñaari ñaari ñaari candidat yi mm. tey ji bu ñu àndandoo woon tey ji ne dañuy dañuy jàppale bi mm. képp ko ànd ak man na nga na nga na nga watee na nga watee liste bi mm. ñi ñi ñi ñi dañuy jàll waaw ah, ñoom sax ni ma déggee ñoo ñoom ño hmm? ñi ma déggee ñu wax hmm. man ah, muy gàpp muy muy kii muy muy muy ay dara hmm. ñoom ni ñu ni ni may gisee ñu commencé woote ñoom ñëpp lañ tàllal loxo dana ñëpp lañ tàllal loxo waaw chauffeur bi tàllal loxo dama chauffeur sépp lañ tàll loxo mais dafa am liggéey bu rëy rëy bu ñoom bu bu bu war a def. bu leen di xaar. waaw. Hmm. dafa am loo xam defi boo xam ne ñoom dañ kaa war a gañ muy wàllu wàllu communication. Hmm. dugg si am na ñoo xam ne jàpp nañ le hmm. élection législative mooy fal Diomaye ak Sonko déedéet. déedéet du fal Diomaye ak Sonko. dangay xool kenn ki sa askan ki boo xam ne sa askan la judd. bokk nga ne ko damaa bëgg yabal la fee nga toogal ma fa. di ma waxal. samay jafe-jafe. dëgg la ah loolu jar naa def. ndax président xañ ñi ñëpp mënuñ faa dem. waaye fii mooy ensemble national foo xam ne mooy penc mi. Mhm. bu njëkk ab dëkk day am am penc. bu ñaar réeroo ñóbbu leen si penc ma. waaw ba léegi village bi toog. Mhm. ñuy toog ñu wax. Mhm. jubóole ñu dem. léegi nag mooy penc ma. mooy ensemble am pencum ndaw réew ma loolu la ñu wax. pencum léegi demeewu ko sax. du pencum ndaw réew mi léegi. penc daanaka penc. xel la penc ñeneen ñi la. waaw ak nekk fay waxante yi maanaam yu il faut ñu ñu dépassé ko li politique yi li ñuy dugal ñoom chaque jour de maanaam politiciens ñoom waaye nañ waaye ko toll na ñoom ñoom li lay gëm loo mooy yow li nga nekk dara li ma mm. nekk mooy dara. waaye ale président euh, Baye Alsane dama dégg ñuy wax Baye Alsane Ndoye dafa mel moom ak ministre des transports de sa ñoo déggoo. mun a dafa mel moom ministre des transports waaye ministre des transports kenn déggut ak moom. ah xanaa yaa déggoo te moom. déggoo moom man maa déggoo moom man ah, nekk transport déggoo. Ah. ku déggoo man maa déggoo moom rek déggoo rek xoolal. mi transport El ku déggoo moom ki nekk transport bi. xañ na da bëgg lu ko neex. Hmm. mais ni muy doxalee dara ci rafetul man maa ko wax. ah bon non rafetul. xam nga boo demee ba ay safuur. Hmm. nga leen ñi nga tam dëmb daanaka ah. nag <laughs> loolu lu muy nul. mais ah, loolu waaw waaw. loolu sabote loolu loolu mooy yëpp maanaam yëpp askan doon propagé wu. déedéet ay ñàkk deret ngeen. Ah, eh, ak ak nu mu ko waxee rek eh, eh. ak xolal ak ton bu mu ko mën a waxee. xametul ah. mais waxoon naa naan kat deret ngeen waxoon day naan direct. waaw directement. mais passé ngeen yokk ngeen naan direct. <laughs> passé ngeen yokk. par kii passé ngeen yokk. waaw ci ngeen naan direct. non déggoo li ma la wax dama ne. Dakar Touba daan doon béy ñu ngi loolu mooy non direct loolu la mais waxul loolu non directement. loolu loolu carrément boo gisee boo gisee boo ah. maanaam boo déggee mu naan chauffeur si ay naankat yu deret la ñu yow bu koy wax. Hmm. maanaam waxewu ko ba nga xamante ni carrément chauffeur si de xam nga foofu problème de communication dafa juum moom. wax dëgg yàlla dafa juum non déggoo li dama ne dafa juum ak cadre bu mu ko mën a waxee. Hmm. mais man depuis bi mu ba léegi. Hmm. benn damaa gis kii am benn arrogance boo xam ne. Hmm. ëpp na lool. kon daal yéen bu ngeen tawee ñu changé ko. no no mais kii kii kii mu nekk ministre transport dama la ñaar ñii. Hmm. ku dal moo ko war a yor ministre transport. Hmm. ministre éducation. parce que ay jeunes nga jiite ñu mel na yow. dafa am koo xam ne ku dal. ku mën a wax di wax ak ñoom ci dal. waaye soo leen wanee ne leen man maa leen gën nekk fare ci li may def dama dama koy def. sëfër yi dañuy lànk. sëfër yi. maanaam benn léegi boo xoolee benn koo xam ne am nga am nga am nga cinquante ans. non ay jeunes la ay dawal amut ay jeunes doo ko ci eh, eh, kii boo xam ne. Mhm. di leen jaay sañ loolu du dem. xam naa nag am na tuuti. te yow pourtant yow li ngay kaas xaaj bi lépp sa responsabilité la. ah waaw si. lépp responsabilité la. dëgg la responsable d'état la man damay dégg aussi ay chauffeur ñu ngi kaas ñu ngi ni muy waxee ñoom premier ministre. moo gën a raisonnable moo gën a teg tegu si table ni ministre de de de de transport ministre de transport maanaam ni muy waxee moo baaxul ni muy waxee moo baaxul. Baal Sane dégg naa mu wax naan loolu kenn du wax sa moromu baay. mu ne <laughs> Baal Sane naan ko loolu kenn du ko wax sa moromu baay. de oh, même sa moromu doom sax doo ko wax même sa morom sax doo ko wax. Hmm. maanaam ay jëmm naan kat dereen ngeen. Hmm. même sa morom sax waroo waroo koo wax. waaye wàññi ngeen paase léegi. ah léegi yéen a ngi yéen a paase léegi yar na leen temps yi de mel na ne. ñu ngi bañ a. mel na ne yar na leen temps yi de. non mënuñoo yaat gis nga moom. Hmm. li ñuy wax moom da day jàll te ñun da dañuy res. Hmm. moom décret moo ko fal. Hmm. suba décret mën na mën nañu bindaat décret bu jëlee fu tourné waat di da ñun. est-ce que sentiroo ñuy dajee ci embouteillage bi. est-ce que sëñ Allé état bi ni ministre transport di waxtaan di wax ak euh, chauffeur si. mënu koo xañ ay carte ci législative yi. mënu koo waxee. mënu koo xañ ay carte ci législative yi. no mënu koo xañ. non ni ministre des transports di waxee ak chauffeur ah, mais ku sañoon ku ne. Hmm. ministre bi nga yor. Hmm. ña fa nekk nga nga déggoo ak ñoom. waaw hmm. ah, loolu laa man mën naa xañ ay carte. Euh, euh, non mën na a xañ. waaw loolu laay la. non dégg nga mën na kaa xañ lu bëree bëri man ma ak El Mali. wa wax naa ko sama benn xarit boo xam ne fa lay liggéeyee. muy Aliou Diop. nekk attaché waaye dama ne ko. sa ministre itel bi wax wax wax leen ak moom. parce que ni muy ni muy bëggee yor transport loolu transport yoru ko. daa mel daa bëgg imposé doole de moom. ah daa bëgg imposé doole. dama la man man su fekkoon El Malick dëgg dëgg lu ma koy def. Hmm. Hmm. porte parole ministre porte parole. porte parole rek laa koy def. Hmm, parole la. kese wala mu yóbbu ko ensemble national. muy dàgg sant. waaye transport moom. am na ñeneen ñeneen ñoo xam ne. mën na mën na transport. est moo est-ce que moo euh, euh, est moo ki fi jógee nii ngeen ko am xasee yéen. mu ngi lay wutal ministre. déedéet non non mais mais. na na kii ni muy waxee nii. Hmm. benn ministre transport su ko waxee ci si moom. moom loolu Mansour Faye yaakaar naa Mansour Faye moo fi woon. non Mansour Faye moo fi nekkoon. Hmm. mais Mansour Faye mosut a waxee nii. Hmm. même bu accident amee. bu dikkee dana wax ci dal wax ci yaru xam ne kat. te dégg naa mi ngi annulé ay permis dégg naa mi ngi annulé ay permis mi ngi annulé ay permis waaw kan. ministre bi fi nekk seen ministre tutelle. maanaam ñi def ñi def yenn soog yi nangam nangam ak yenn. manque loolu loolu moom d'accord naa loolu moom wax na ko mi ngi añu mi ngi añu lay période. fii ay fii ay daan amut. Hmm. ci sëfoor si am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne duñ duñ duñ bàyyi. Hmm. xam loo xam ne. Hmm. yow loo tay la. il faut yaay yar bi tege. troisième position. génn ligne continue. face à face loolu yoon di aaye dëgg nga di ko def loolu loolu yabaate passé wu. ah mais nga verbaliser ko te bañ ko. añu lay période gis nga sénégalais. soo ko bëggee yar. Hmm. da ngay dóor. non mooy mooy verbal permis en point la ñu waxoon. Ah. mais loolu tamit nan la wàññi benn point. Hmm. trois points bu ñu benn point bu ñu benn. Hmm. beneen moom soobee yàlla kenn kenn du ko wàññi si gëldu nag nga fexe ba doo ba doo ko wàññi mais mooy. ñu ñu ñu ñu def ko. bàyyi leen rek. bàyyi ñu alkaati. ñaari baat ñett ñu ne la dama dama dama dama lay yóbbu non day am. ñaari baat ñett ñu ne la ma yóbbu boobaa ñoom da da dan dan la ciy rey ndax. gis nga diggante Touba ak Mbacke rek. Mm, mm. police yi Mbacke yi léegi. Mm. ko da ngay dugg Mbacke ñu ne sa sa carte gi si baaxul. soo ma joxul temps mooy yób mooy ma ma yóbbu si bi duwaan. non loolu amul tegul fenn. day fekk carte gi si bu baaxul xam nga. nit ñi am na ñoo xam tayal nañ fi. nekki dem duwaan ak. maanaam nit ñi ñoo ragal turu duwaan. Touba xamul turu duwaan. man de bi ma ko defee dama ne ko yóbbu ma. waaw man bi ma ko defee. dama ko yóbbu ma sa carte gi si baaxul ma ne ko ah. fii ci entrée Mbàkke xàmmee naa ko baax police bi dama ko ah mu ne man ma ne ko ma waaw loolu lépp loolu mu ma demal yóbbu fekk ko yóbbu na ko yóbbu ma léegi bi mu ba ci biir taxaw jëlaat cartagis bi dugg xool cuut cuut ñëwaat ne ma waaw bi ne ma ne ko seen bi da ne baaxut mu ne ma ma ne ko yóbbu ma ba ma yóbboo ci yoon ba ma yóbboo ci douane wala fa ma mën a yóbbu nga yóbbu ma ñoom ñu teg ma li li ñu tege na ko nag damaa yàkkamte aussi te damaa nekk ci ay itte ndax yaa ngi yabal ma ma tax ma dem hôpital di ko quoi di dir si fii nii wax ma du dafa taxaw dugg ci oto bi génn naan nangam nangam jaay oto bi ma wax ko ki ma jaay oto bi ne ndax oto bi euh, ci maaraay yi nekk xaar ñoo ma ko jaay ma ne ko bu fekkee ne duwaañ tey na ko ma dem mu delloo sama xaalis ci la dugg kalañ kalañ demaat yëkkatiwaat kaataay gis bu jox ma ne ma nangam waaw kilifa nga boo ëllëgee ma wóoroo woon a waxee ni ma ne ko sëñ bi man waxee danga maa jàpp ne ma kattaagis bi baaxul dem nga ba ci biir xam nga ne baax na delloo nga ma ko jeex na mais baaxul li ngay wax tëb wax ko te tegu ko fenn man mooy li ma nga xam ne moom moom mooy li ma naqari moo tax li nga wax ci problème à point dafa jar a bàyyi xel à point bi dañoo war fii ak mënuñoo am ay ay caméra de caméra de surveillance yu doy yoo xamante ni mën naa mën naa mën naa génnee nit ki li mu def ñu wan ko ko mu leer nga xam ne kenn du ko werante ak moom dañ koy xamal ne ko carrément vidéo bi mu nii yow Adama Mangane bi ngay dem Jolof bi ngay romb euh, Darma euh, tableau limitation de vitesse bi mu ngi ne la ba cinquante yaa ngi rombee fi quatre-vingt-dix mu leer waaw waaw maanaam la Sénégal tollu amagul mm-hmm. ay caméra surveillance yoo xam ne boo boo dawee boo dawee mm. li ñu la mm. ñu jàpp la mm. wala ñu heure temps. waaw ah, mais mën nañu ko Europe la fekk Europe la. Hmm. mën ngaa def benn infraction. da xëy sa buntu kër la la la la la lay jox infraction. tafal la ko fa waaw nga dem trésor nga dem nga fay. Hmm. mais mën nañu ko commencé autour il a trois benn temps. non dégg ma xoolal bu ko commencé du jeex. Hmm. du du maanaam. du réussir du maanaam mën naa réussir sax mais da day yàgg ndax route nationale yi boo xam ne route nationale yoo xam ne ay paxlaam. comme mënoo fa def ay caméra surveillance. xanaa bu demee ba route péage yëpp dëkk yëpp am ay péage Kaolack egg Touba mu jóge fii Touba dem Fuuta mais ba tey ala xam nga national moom limitation dañu la route bi nga xam hmm. ci wala boo ko rombee mënoo caa nga xamante ci la nit ñi di ëpp dañuy daw hmm. war nañ faa monter ay caméra de surveillance yoo xamante ni infraction yooyu ku ko def ci autoroute boobu noonu ñu jàppale mais yeneen tali yi moom jër daanaka jëru sax yàkkamti ndax mënta ne c'est impossible yenn tur ni ay dem Kaolack ni ñu jógee Touba dem Kaolack dem ka mënoo fee daw yenn xel yooyu noonu carrément mais fi nga xamante ni fii nañ gën a yaakaar ne fi leen nit ñi daw mën nañ ko fa faa monté ko en attendant sëfu si fu ne boo déggoon ne autoroute Ila Touba bi wala fii ak wala péage bi jàpp nañ ci ci limitation de vitesse telle waaw wala kii doon na def téléphone au vent jàpp nañ ko naan dañu ñu gis vidéo yi wala ñu ko siiwal ko dana dana ci wàññi dara changement dana. moom moom laa la dama ne. Hmm. fekkoon ñëpp ñëpp mën nañ ko. Hmm. loolu mën naa nekk. Hmm. maanaam suñu ñépp maanaam kii yëpp am. am am am am am am kii bi mën naa mën naa nekk waaye matuwaay. matuwaay si boppam mooy des. xam nga maanaam autoroute yëpp wala wala am caméra surveillance mm-hmm. mais mais mais autoroute yi dañ moo des mm-hmm. autoroute boo xam ne baaxul mm-hmm. wala route nationale route nationale Tamba xoolal ñaar oto fa moo fay jaar par jour mais est-ce que am am na am na caméra surveillance ah, caméra surveillance loolu donc bu nit defoon soog mën na ma mën na leen saisir dañuy xam kii moo tooñ mais matukaay yooyu moo des. léegi nag lépp lañ bëgg a jël kapp ci kaw Sofër si. waaw Sofër si wax dëgg yàlla côté boobu man gis naa ci indiscipliné ci ñoom mais ba tey man yërëm naa leen ci côté boobu noonu. xam naa ne comme noonu waaye nga ne ku mel ne président Aïdara Niang investir nañ ko aussi ci list Baye Alassane Ndoye ci département bi ah moom wax dëgg yàlla am nañ ci moom yaakaar. moom président Aïdara Niang am nañ ci moom yaakaar kon ñu leen di fàttali fréquence rajo bi ak télé bi 99 point 0 la fii ci Assalaamy FM Assalaamy TV numéro téléphone bi de 88 628 53 53 mooy boo mu jokkoo gi képp koo xam ne bëgg ngaa jokkoo ak sëñ Alé Mangal wala sëñ Dame Lo fii ci Assalaamy TV ak Assalaamy FM 88 628 53 53 xam naa président euh, Aïdara aussi man am naa ci moom yaakaar ne bu fa toogoon dana nekk di kaasal chauffeur si ku ko mën a jàppale nag ci sa si nga jàppale ko waaye nag xam nga ne lu mel ne parlementaire ak yooyu yombul yombul te pour nga am doole ba mën a def wala nga dindi nekkul benn député seul ngay am ci transport moo lay defal li nga bëgg mën naa taxaw nag lancer seen soxla état dégg ko ministère des transports dégg ko ministère des forces armées l' intérieur ñu dégg ko daal ne ah leen dimbali ci nangam mais benn carte boobu wala ñaari carte yooyu nekkul moom mooy nekk mooy def wala mooy dindi. xam naa nag fi mu ne lii yëpp ci xeetu avancement la xawma da ngeen di xeex ak seen ministre est-ce que jarut seen ministre sama yaakaar mu woo leen consensus. ngeen waxtaan woo syndicaliste si ak président regroupement yi ñu bokk toog waxtaan ak ñoom ndax transport de mbir mu yaatu moo xam ne nii kër goo dugg rek laal na ci dara. léegi est que jarut mu toog ak yéen woo leen daal. xam nga fii fii élection yaakaar naa ne yaakaar naa le le 17 novembre. ah 17 novembre waaw. Ah, xam nga li fii ak le 17 novembre jàpp naa ne waxtaan mënu fi am. au moins bu ñu waxtaanee dañuy xam moom li mu bëgg. waaw ah, dañu naan ay campagne. waaw xam nga fii moom te instant yi koo fi woo pour kii de day jàpp rek da campagne te moo hmm. am tamit campagne lay doon. moom waxtaan xaju fi. Hmm. ñun ñoo war a dépassé. Hmm. nit di ñu campagne. ci législative leen jëm xañ na mënuñoo am. candidat boo xam ne présidentiel la. Mhm. mais war nañoo mën a am candidat boo xam ne député lay doon. Mhm. législatif boo xam ne maire lay doon. Mhm. loolu moom mën na tàmm. te jàpp naa sum e-, e-, na foofu. Baye Alsane kay maire la. ah ma la eh, Baye Baye Alsane daanaka moog politicien yem rek. waaw Baye Alsane chauffeur car la dawal na fii transport naan naan na ndoxum bidon def na lépp nag Baye Alsane nga mën ngaa naan mën ngaa dawal car mën ngaa daal ndoxu bidon. Hmm. mais ba demee fii gaa gaa yi soppi la. def def le vrai politicien. est-ce que kon sa gars yi nga xam du ñu hmm. ci li ma jàpp mooy. Hmm. li ma jàpp mooy. Hmm. ñee maanaam lu dund la. mos xam li ci transport bu baax. urbain. inter urbain inter urbain. def kala def lépp. bon ñooña. bu ñu yóbboon pour pour pour fëkk leen du yomb. ndax ñee tamit. lu bon bon xaw na ñoo jaxasoo. ndax. ay dara. xaw naa laal laal ci politique. bon pour ñëw fukk du yomb. Hmm. jàpp naa su su su demee ensemble li muy ñëkk kaas. Hmm. mooy nan lañuy def ba. Hmm. taxi Touba Touba am taxi yu méngoog dëkk bi. dëkk bi loolu boobaak léegi. ñi ngi daw ci gannaaw mënuñ ko am. benn benn ministre moo ñu mën a recevoir. mu El Hadj Daouda Diallo. ah Daouda Diallo si. moom recevoir nañu waxtaan ak moom. ci ndimbalu maam Xarim Mbàkke. boobaak léegi. jàpp naa ne benn ministre bu ah. boo xam ne woo na taxi pour nu ñuy renouveler parc une auto. automobile Touba. ci wàllu taxi. Mm. man gisuma ko. Mm. chaque jour li may gis mooy ni ñuy reyee taxi Touba. Mm. te boo xoolee Touba amul usine amul géej. amul dara commerce moo fi nekk. ak transport ak gis koo xam ne day teg am nattam jëndal doom ab oto. balaa yàgg mu yàqu. wala oto bi du ci mën a liggéey oto bu mënul génn. te pourtant bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu dimbale woon. accompagner leen daal ak ñu. Hmm. bu ñu accompagner. Hmm. den gars yi de dinañ ci génn. kon suñ oto yi xam ne mënuñoo génn kàddu balloo ji gii. Hmm. fee leen koy teg jënd oto wut si oto yu baax xam nga dem fépp. aussi foofu président Allé dama faa seetlu leen. waaw en général damay gis. état même bu demee ba koy def oto yi muy indi damay dégg chauffeur si baaxut oto yi baaxuñu léegi est ce que ñu waxtaan nga xam ne bu jël acteur de transport yi jar na suñu jël ay taximan yóbbu leen. ba ñu ñoom ni ñuy choisir moo baaxul. Hmm, parce que xam nga dëkk boo dem. Hmm. da ngay dem ba xam. seen réalité. waaw seen réalité. Hmm. xam jawwu ja ban oto la laaj. environnement ba lu mu laaj environnement kilo. maanaam jëmmi tëli ba tamit lan la laaj. nga jël nga wut oto yu mel noonu. Hmm. yoo xam day dugg ci kàmb. day xuus ndox. waaw nga wut oto bu mel noonu. boo dikkee tamit. Hmm. bul xool ñi am ñi am xaalis nga jox leen ko. Hmm. daanaka oto fi ñëwoon yëpp. commerçant marché Ocass koy jël. bàyyi la marché ak mbàkke mbàkke yi. ak gisatu <laughs> ñu yor dara. mais ne ki xam ne nag moom day dund ci oto. moom day day continuer rek ñu ñu di ko def genre genre limo wala genre. mu soxla si. chauffeur bi daal dawal lay nekkee toujours. dawal rek. moom mooy mooy dawal fay banque. Hmm. su dee ba bu màggatee ñu ko ci oto. Hmm. su dee bu mënatul ñu hmm. tege ko ne. jëlaat keneen. est-ce que yéen pare ngeen nga xam ne bu état ñëwoon pour indi leen ay oto yu baax pare ngeen pour jël ko pour liggéey. no mais loolu loola pare nañ ci yàgg na xam nga loolu loola il faut pour ku ñu accompagner dem ba fa ñuy defaree oto yi mooy problème bi. sëriñ boobu seen waa ji. sëriñ boobu mooy yàq transport. waaw dëgg. wala est ñun ñun Touba lépp ñu lu ñu dal. Hmm. ci wàllu wala Sénégal ci wàllu transport. Hmm. Serigne boobu Idrissa Seck ñoom ñoom ñoo ñu ko def. lobby boobu ñooñu même moins de dix dix ans oto lépp ñoom ñoom ñoo ko def pour Séné <coughs> Sénégal Tour dox. Sénégal Tour ah ok CCBM. waaw CCBM man de est-ce que ndax damaa gis ne oto volant yi ma gis. mu yenn marque yi. yo buñ jëloon yokkal ñu âge bi ba nga xam ne oto yi mën nañu dem bu douze ans wala quinze ans da ngay gis ay oto yoo xam ne ñu ngi bitim réew yoo xam ne mën nañoo continuer di dox normal bu oto yu baax la ñu dëgër yu garanti mais yi may gis fii ni li nga wax dafa àndut ak suñu environnement mën naa ci cité sax ba ci vert blanc yi ñuy wax nii bu ci dugg ci la fay nga xam ne léegi ñoom maa ngi ci doon waxtaan ak euh, yenn kilifa yi nga xam ne ñoo ko yor samay xarit yoo xam ne ci lañ bokk mais dañoo introduire oto chauffeur ne leen bu ko kenn ndox léegi ku xam Touba nga yor fa oto boobu da day urbain day yóbbu ay nit ak yéen te doo laal ndox loolu aussi président Allé loolu mooy li nga doon wax dañu war a xool oto yoo xamante ni fi ne ni mbàgg Touba yi danañ fi yàgg de mbàgg Touba yi Toyota yi danañ fi yàgg ndax ñoom bu xasee fees départ bañul ndox bañul dara. départ dañu yor moo tax ma dama ne la. Hmm. maanaam dëkk boo dem dafa dafa am ay réalité hmm. Dakar boo fa demee. Hmm. ñoo fa nekk. Touba Mbacke Touba. boo demee Jolof ëpp li ñuy ëpp ëpp yaa moo fa am. L200 yi L200 day jël benn <laughs> oto dagg ko jël ab benn dénk traversé ko <laughs> nit ñi toog si. kooku même boo ko dugaloon ci oto bu oto oto clip. maanaam moom lim xam mooy day toog romb. di xool nature bi àll bi. ci dénk bi loolu moo ko. ngelaw li da ko ëpp soo ko dugal da koy kii. waaw oto yi ma gis benn vidéo ñu koy dugal ci groupe transport ay oto a gàtt weex xaw ma gis nga xaw ma gisoo ko. gis naa ko. ñu ngi Sénégal wala. waaw maanaam cér maanaam cérémonie bi de dem naa ba gis si. Euh, candidat. waaw Baye Ndoye candidat Baye Ndoye. waaw gis naa te même tey la laaj naa waa ji mun a ma. Hmm. ab projet la mais ñëwagul naa wax. mais Baye Ndoye génnut réew mi. ah daa génnoon réew mi. déedéet. ah yëguma ko boobu. oto yi yaakaar naa ñu ngi Sénégal. waaw peinture guñ ko benn couleur la couleur blanc laa gis. vert vert blanc la mais oto bu ndaw la. comme genre R4 kay tout ndaw la. Hmm. mais oto bu ndaw boobu nag gis nga gis nga boo indiwoon Touba gii. Hmm. gis nga hmm. da oto boo xam ne yëpp ab bitik xam nga bitik. boo déggoon Paka Soble. waaw garage ñoom. Euh, Samba Samba Dia. oto bi day yëpp bitik. ah bon yëpp soble pomme de lépp la yëpp si maal ba fees. xoo hmm. oh, oh, oto bee amul maal oto bee maanaam koo xam ne day day dem benn rendez-vous. Hmm. benn sa sam kooku kooku la mën a yóbbu. oto bureau daal oto dem bureau maa ngi xëy bureau. jeex na. oto bee dafa ne ni ko indi Touba nga xam ne léegi ñu ne kaay yóbbu ma dara la. waaw kaay defuñu ngor <laughs> ko ñett. waaw nga. <laughs> Hmm. moo koy dugalee. dëkk bu ne ak gis nga 21 yi ak ak yeneen yoo xam ne du oto courant. Hmm. yooyu ñoo ñooy ak 406 yooyu 406 yooyu. wala 406 nañ bees te gars yi nangootuñ ko fa laaw. mooy mooy mooy kiiw Touba. Hmm. waaw. Ah, loolu oto yooyu de wax dëgg yàlla man gis naa ko mais soit gisu ko ñu peintre ko benn peintre te aussi gaz oto gaz dama xam naa ko mel ne président Pape Seck dinaa fexe amaat ak moom beneen émission mu yee nit ci oto gaz oto gaz. dafa am réew yu ko war di dawal ak réew yoo xam ne waruñu koo dawal réew moo xamante ni mën ngay daal mën ngaa romb ak daay oto gaz waru fay daw. te oto gaz bu ñu ko installé ba pare bu dee tubaab bu ñu ko installé ba pare ba oto bi commencé daw. muy mise première mise dañ koy utal àpp. dañ ko visite technique ans exemple 10 ans yooyu bu xasee mat oto bi lu mu bees bees dañ koy arrêté. parce que installation électrique bi. mooy toll foo xam ne oto bu bees su ne du maas. du maas fenn parce que fuseau yëpp mu baax mais oto bi nga xam ne yow fi mu ne nii sa fóon xam nga li ma wax yow yor nga oto ba taay mu maas bay génne ay ay ay étincelle nga wàcc maa la wax loolu. waaye léegi bu doon oto gaz looy def. explose. jeex na c'est ça le problème. kon dimbali ci oto yi ñëw. nañuy defal oto gasoil waaw yu méngoo oto gasoil bañ kaa jël oto yi nga ne doon day am ay capteur ci suuf bu duggee ci ndox oto bi fay. day fay waaw. nañu oto oto yoo xamante ni moom oto yu baax la ñu fàtte lu fréquence rajo bi 99 point 0 asalaamaaleykum téléphone bi 88 628 53 53 xam naa ne ñu ngi ciy déglu sa mbokk sa foofu nga xam ne ñoom déglu lañ gën a mën a woote te mbir bu ko jëlee teg ko di ci wax loo xamante ni seen intérêt de cee nekk yéen ñëpp kenn ku ci nekk da ngaa war a mën di dugg di ci wax waaye lu gën a bëri bu boo génnoon fii dégg ñuy te dañoo war a mën a fii ci plateau bi di wax seen soxla wala ñuy woote téléphone ah di kaar seen soxla it ndax wax dëgg yàlla li ñu def nii mën na ñoom ñoom lañ koy defal ndax boo xoolee nawet bi nii di soog a génn nii chauffeur si rawatina chauffeur urbain biir dëkk bi sonn nañ coono boo xam ne man man li woo ci ay nit di ma wax war nañoo jàppale ci lii nangam nangam bari na trop trop trop trop ñoo xamante ni ñu ngi dañuy jàmbat fu mu toll daal loolu xaw naa président xam naa daal émission fi ne ñu ngi ci cappaandaw gi ndax euh, fi ne nii daanaka ñu ngi ci 22 heures si daa mel ne temps bi mi ngi bëgg a jeex ñu ngi ziare ñëpp di balu àq ñëpp président Allé sa kàddu gu mujj. comme ni nga ko waxee rek ñu ngi gërëm bu baax di sant bu baax. Hmm. di sant bu yàlla bu baax a baax bu ñu mayee ñu kàttan ñëwaat fii rek ci émission jataayu transport. Hmm. comme ni ma ko doon defee rek di sant sama waa dëkk bu baax nag. Hmm. ak mboolem ñoo xam ne yaa ngi dëkk ci Jolof surtout Madène. di am remerciement bu baax nag di jaajëfal bu baax mooy comme ki mu la waxoon rek mooy Alioune Diop mhm. nekk attaché ministre du transport mhm. di ko wax ne geelab gone gudd na lool waaye loo sa laat rek boroom yëg mhm. ndax ñun dañoo amul nu may ñaari dëkk muy cooyaan ak Maadeen fii fii suñu yaay fa la jógee fii suñu pap fa la dëkk su demee nag li mel ne cooyaan euh, mu jox leen am machine ñun loo ko defal waa Maadeen tu pare ne ko benn final mu def loo xam lu rëy bon ñi ngi koy jaajëfal bu baax. Hmm. di ko wax frère ñu ngi ca ginnaaw. ñu ngi lay jaajëfal di ko wax waa Marine gépp hmm. ci sama kàddu ñu ngi lay jaajëfal ak waa Cooyeen. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf président ngi lay sant di la sant bu baax a baax sëriñ Abibou suñu technicien bu mucc ay bi macha allah jërëgeen jëf kon ñu leen jox dig daje ba àllarba ji di ñëw vingt et une heure vingt deux heures fii ci Assalaamy TV jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ci jotaayu transport ci seen rajo télévision Assalaamy FM àllarba ju nekk lay doon vingt et jàpp vingt-deux ngeen ci ànd ak seen bokk El Hadji Dame Lo mu ciy feggoog sëñ Ali Mangane. jotaayu transport. maanaam émission transport jotaayu transport la. ndax moom ñëpp ci bokk. traité mhm. ci. Mhm. kii yëngu ci ngi ci. Assalaamy FM. ci interurbain biir.